mais dama bëgg ñu génne lenn mooy les gens de mauvaise foi nga xam ne duñu wax dëgg mukk ak nu ñu def ba yàq jàpp nañ ni mun nañu féewale Barthélemy Dias ak Khalifa sal wala Ousmane Sonko ak Khalifa Sall dégg naa ci kenn koo xam ne dafa fen a fen ba ñuul kukk ngeen jegal ma ci kàddu gi kilifa yi du mus lu mu mus a wax ci àdduna ba suba ba ngoon jot du dëgg naan Sonko a di a Khalifa allez vous xam nga mag mu toll noonu nga xam ne tey la dese ci dund euh, li nga dund moo dese la dese dund ngay wax loo xam ne dara du ci dëgg kon ñooñu laa bëgg Sénégalais yi xam ni fii problème amu fi lii rek la du benn complot du loo xam ne Macky moo jënd ma Massamba wala demba amul ci Yewwi Askan Wi du loo xam ne lu ñu complot la pour casser la carrière de X ou rek amu fi kenn ku nekk c'est de bonne fois Khalifa a tardé à prendre une décision parce que dafa bëggoon waxtaan ak Barthélemy ba ñu déggoo Barthélemy a tardé à lâcher parce que dafa jàppoon ni équipe bii la soxla pour mun a gagner Dakar c'est tout amu fi leneen mais ku nekk yor sa làmmiñ mbër mbër mbër et puis nos adversaires la foog ni mën nañu jaxase yeewi askan wi laaj leen kan mooy nu mu tudd Saliou Sarr ñoom dinañ am leen doy ñu ngi ñëw ci loolu kon lii moo fi xew il n'y pas de problème entre Khalifa Sall ak Barthélemy avec entre Ousmane Sonko ak lii certes il y eu de la négligence humaine certes il y a eu des erreurs et nous les assumons mais de la à vouloir yóbbu affaire bi fenn loolu amu fi et tout ce procès qu'on est de faire à Khalifa Sall il faut que ça s'arrête c'est faux nit ñi mun nañu bañ a kontaan ci investiture yi mu def ça c'est autre chose mais wax ni dafa jaay liste bi dafa lii dafa laa loolu amu fi la ca des nag ba ñu demee ba décider ne dañuy dem déposé la foofu direction des élections foofu it erreur humaine la parce que boobu ñoom def nañu vingt quatre heures foofu plus de vingt quatre heures ku dugg vingt heures ba le lendemain vingt trois heures quarante lekkuñu lu baax sonn nañu ba pare nag ñëw taxaw ñu ne leen ah lii de lu mën a nekk la kon loolu c'est une erreur humaine Déthié Fall kenn mënu ko remettre en cause En tout cas, man, il a à 500% ma confiance et mes remerciements. Parce que nak, nit ñi xaaruñu lu dul erreur am ku nekk di wax waaye Déthié Fall moo yoroon suñu suñu suñu investiture élection locale yi. vous souvenez soixante di listes yoo xam ne daw na subaak ngoon ànd ak avocat yi bi sous préfet ak préfet ak ñoom ñëpp def seen gàngoor googu di yàq suñu suñu kii suñu liste yi kooku ñu xëy tey depuis combien de temps la nelawul siège am lay fanaan ànd ak informaticien yi depuis parrainage ba ni ñuy déposer liste yi ba ni may wax ak yéen nii ma nga ak avocat yi ñuy préparer des recours les gens sont tranquillement dans leur salon taal seen truc yàkkamtuñu lu dul erreur bu ndaw am ñu loo mës def ci àdduna baaxatul faut qu'on arrête ça d'accord erreur am na négligence am na peut-être même euh, naïveté am na mais loolu mun na am mun na dal kenn ku ne ci ñun ça ne remet absolument pas en cause ni l'intégrité ni l'engagement ni la probité ni la détermination des gens et ils ont besoin du soutien de l'ensemble de la coalition et de tous les Sénégalais parce que pièce indispensable lañ ci euh, coalition bi je dirais la même chose pour Saliou Sarr et ce qui est déplorable c'est que ñu du génn ku nekk di wax parce que ñun ñëpp demandé woon nañ leen man woo naa Saliou Sarr wax ak moom ba mu ne ma may naa la ko du ma wax le lendemain mu wax on a fait la même chose avec Déthié ça on le déplore mais nit la ay nit la loolu mun naa am Saliou Sarr il est euh, depuis les locale ba léegi investiture locale yi il a passé au moins une semaine boo xam ne nuit blanche lañ doon def siège ba pour def les investitures ba tey jii je ne remettrai jamais en cause l'intégrité et la probité de ces gens-là mais lii am am na est-ce pour autant qu'on a perdu notre liste absolument pas foofu nag laay wax ak sénégalais yi ñun loolu moo ñu intéressé l'erreur humaine pes passé na mais qu'on sorte une seule disposition de la constitution ou de la loi électorale bu wax ni avant le début des contrôles des contrôles juridiques que kenn mënul ñëw rectifier une liste y pa a pas amul amoon na ci loi yu njëkk ya ñu dindi ko depuis 2001 amul depuis 2021 du moins donc amul la direction générale des élections bu ñu fontoo nit ñi parce administration suñu laa dilee courrier da dama koy jël amoo droit ne du jël courrier bi même sooy instruire après ne ko rejeté na depuis quand l' administration vous amène un courrier nga ne du ko laal l' par essence qui est au service du citoyen citoyen andi courrier nga ne du ma ko jël est ce que est ce que am nga sañ-sañ tey yow dem trésor wala douane wala impôt douane andi sa benn courrier adressé ko directeur général des douanes ñu ne ko duñ ko duñ ko jël dañ koy jël. même suñ dul tontu wala même suñ koy rejeté mais dañuy jël courrier bi au nom de quoi commissaire Sarr ne moom du jël du jël courrier bi loolu voie de fait la déni d'administration la et c'est très grave et nous les poursuivrons pour cela parce que c'est très grave ce qu'ils ont fait dem nañu seenaa ñu jël c'est bien le président du Sénat était très gentil mais il n'a qu'à dégager parce que amatul mandat il n'a rien à faire là-bas 2001 ba léegi xam nga 2000 kañ nga toog fii rek euh, kii kooku da lay da leen di nii rek mais lu ko Macky wax mu def ko il n'a qu'à dégager donc loolu moo fi am li ci des suñu list bi bu Dakar c'est une liste qui est recevable et qui devait être reçue c'est ça la vérité administration nag problème la ci Sénégal bu dul préfet di ministre bu dul ministre di DGE mais loolu il faut que ça s'arrête mënul continuer noonu notre liste est recevable et elle sera reçue mais li gën a garaaw cette même DGE a admis et a reçu et a validé les parrainages de Bokk Yaakaar lan la yoon wax yoon nee na warul dépasser temps bu dépasser benn c'est-à-dire du ma ne benn nit sax bu parrainé waaye benn tànk sax bu débordé dàq nañu list boobu loolu la yoon wax conseil constitutionnel feddali ko ci li ñuy wax jurisprudence gàkku tey ñu ne dañuy jël parrainage Benno Bokk Yaakaar te Benno Bokk Yaakaar dafa déposé lu ëpp loolu waaye ñii ñun ñun daal lan moo tax ñu war ñoo yem nag ñun daal ñooy encaissé lu leen neex ñu teg ñu mais ñële lu leen neex ñu def il ils acceptent de recevoir ça moo tax ñoom ñi ngi fële ak avocat di bind ay recours man gëmma seen recours yooyu de conseil constitutionnel bi suba nag union des na ñu génn mbër mbër mbër mbër mbër bu ñuy dem di leen noggatu ba di filmer seeni i euh, di seen i audition du ñu génn wax gis nga réew mi suñu moytuwul administration justice ak Macky Sall ñoo ko nar a taal moo wax ko ñëpp dégg ko nag parce que doole gi ñuy jaay nit ñi mun nañ ko jënd ëpp ñu ñu ci réew mi de ëpp ñu doole te xam nañ ci dara fit bi ñuy jaay parce que ñi ngi làqatu ci gannaaw alkaati te nañu fexe nag bis bu ñu ñàkkee nguur nañu am ngor ñun nii ñu ñemee taxaw ak ñoom ñoom ñu yor nguur ñor justice yow lépp ñuy xeex ak ñoom bu fi kenn dem ci sëñ si naan daf maa bëgg a tëj de yëfu yàmbar yooyu amatu fi de ils n'ont qu'à encaisser xëy wër ci rajo yi télé yi di saaga nit ñi di wax parce que yaa ngi làqatu ci gannaaw alkati yaa ngi làqatu ci gannaaw justice yaa ngi làqatu ci gannaaw Macky Sall loolu yëfu buqat la ñun nag li ñuy wax dafa leer te li may wax nii Yewwi ak wàllu la concerné parce que sacrifice yi ñu def alliance bi ñu def ak wàllu c'était pas évident c'était pas évident du tout ndax ku fi nekk rek xam nga ni ñol ñoll yu am ci diggante yi xaw naa bëri li nga xam ne mënoon a nekk ay obstacle bëri na waaye bu ñu demee ba def ko dafa fekk dem nañ ba gis ni réew mi moo ñu war a gënal suñu bopp téeméeri yoon te il faut ñu sauver réew mi alliance boobu nag la Macky Sall bi mu ko yéegee defe naa nelawatul lekkatul alliance boobu la foog ni mun na ko gàkkal mun na ko galgal ci lii mu def nii moo tax dama wax ni yeew wi ak wàllu laa waxal ndax yeeweek wàllu bu ñu amee seen fulla Macky Sall xajuñu ci moom Benno Bokk Yaakaar xajuñu ci ñoom ñoo xam ne pour ñu génne ñetti nit fii foo ñu génne xaalis bu dul jeex ñun bu ñu taxoon fii woote ndaw yëpp génn bokkuñu sàcc xaalis jënd ay militant génne ay kaar bokkul ak koo xam ne tey soo wootee askan wi doylu la génn uy la ñaar yooyu bokkuñu bu ñu amee suñu fulla list Dakar nañ ko dugalaat waaye bu ñu amee suñu fulla Benno Bokk Yaakaar warul participer ci élection yi coow li loolu la Benno Bokk Yaakaar dafa warul participer keneen ku mu doonoon fii ci coalition bu Sénégal